cnenews.com, c'est le lieu de rendez-vous par excellence pour vivre l'actualité autrement. Votre site d'information, cnenews.com, met à votre disposition une application mobile totalement gratuite et disponible sur Play Store et App Store. Un portail riche et varié avec une Nous sommes vendredi 25 août 2023. à Mbégte, chers internautes, des euh, jaajëfal bu Ladlen Ananangé baax a d'y ana entretien exclusif fas yéene waxtaan ak Domi Sénégal comme ni le ko tous les jours jéem cee indi ay saafara tey nag dañuy am didalal euh, di dalal Ousseynou Thiam délégué du personnel à Eiffage autoroute à péage il est également le chargé de de communication euh, des délégués euh, ba tey ca Eiffage moom la ñu fas yéene sikkal bataille nak ci waxtaan wi dañu ci and ak mom mom nak dafa japp ne rek dañ ko dal di licencier maanaam waa Eiffage dañ ko dak fa mu daan liggéeyee di fa suturloo mom ak njabotam ndaxte ay euh, joytu yum daan def wala sax ay euh, da don dénoncer yu bare bare yo xamanteni personnel bi daan nañ ko jankontel mom nak japp na ni excès de pouvoir lañu utiliser pour mën ko yob euh, fofé nga xamanteni momay inspection du travail ba mu jaaree fa ñak ligéyam lu ci mën ci don dañu and ak mom ci waxtaan wi buñu ci également dañu jema def ay démarches ngir mën jot réponse waa Eiffage société ba jema xam lan mo waral lu ni mel pour juste suñu mëna équilibrer li nga xamanteni mom modi information bi dama lay bàyyi Ousseynou Cham nga dal di ak internet SeneNews TV euh, aouzu billahi minash ashaytani rajim bismillahir rahmanir rahim wa may yattaqi yaj'al lahu maxraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib wa may yatawakkal ala allahi fa huwa hasbuh inna allaha balighu amrihi qad ja'ala allahu li kulli shay'in qadra alaykum Sénégal merci beaucoup J'ai fait le ci déplacement bi mhm. euh, ñu jot ay information comme si que ni euh, dañ la dàkk sa bërëbu liggéeyukaay ndaxte da nga doon dénoncer lu baree bari lu ci mel ni ay chaise bu yàqu lu ci mel ni ay poubelles yoo xam ne toj na seeni conditions de travail te mhm. comme da nga bokk ci délégué yi donc euh, sa fonction là, à ce que nga daal di dénoncer li personnel bi di dund lu ni mel boo ñu ci mënee indi ay yaatal wala ay leeral dinañu amal solo waaw jërëjëf maman di am mbégte loolu wax dëgg yàlla euh, ci euh, dénoncer wa ma Facebook il faut toujours avoir le courage de dénoncer parce que dénonciation bi dénoncer. Mhm. Euh, même su fajul aajoom. Mhm. dina tax ëllëg manam ne dina song manam madame buffle. Mhm. ci manam mom xawma lan lay rebeuti mom xeyna na mu rëbb euh, kéwal wala dara way dina dina dina dina xol bu baax après proie bi mu bi muy bi muy bi muy bi muy bi euh, saisir mhm. parce que manam si tu es sans défense ci monde bi ñu toll les nga xam cruel les gens n'ont aucune pitié kep kuñ meuna briser kep kuñ meuna mën ils n'hésiteront même pas mhm. Euh, mbir yi nag euh, ni mu demee euh, mooy que chaque entreprise bo xam dafa am au moins 50 personnes. Mhm. loi dafa exiger à ce que ñu am des délégués du personnel. Mhm. parce que 50 personnes yooyu mënu ñu ñom ñep ku ci nek di dem di wax ak chef d'entreprise bi pour waxo nan ko li moy problème entreprise bi le léeg mooy problème entreprise bi. léegi nag ce qui fait que chaque 3 ans dafa am ay vote yo xam entreprise bo xam eppal na 50 personnes bu nek mhm. dañ koy amal ci bir euh entreprise bi pour xam ñan ñoy téwal

chaque euh, mois a le droit faire deux réunions. Mm-hmm. entre euh, euh, délégués lay doon ak une réunion mensuelle obligatoirement chef d'entreprise même si fekkee ne moom nekk direction générale de manière générale am nañ dañoo obligation pour def personnel délégué plutôt une réunion au moins. Mm-hmm. léegi que, je may ma me tuuti que rappeler cas au harcèlement. Mm-hmm. c'est pas une première fois à FH. parce que euh, am sen yenn confrère bo xamné ben vidéo dem sax yaakaar naa envoyé naa la ko lien bi batay tey mi ngi si euh, YouTube bi Sénégal set la su djumul pour ñi nga xamné dañ ci am doute bo leen démé mën dañ gisaat vidéo bi dafa am ben femme bo xamné euh dañ ko harceler won biñ ko harceler mu yóbbu euh inspection du travail bim mu ñu ne ko mën nañ la fay 6 mois de salaire <laughs> nga démissionné. femme bi agent la won foofu. femme bi agent la won foofu d'ailleurs pour des besoins de témoignage mom mhm. si bopam elle est prête à témoigner. Euh, on a fait tout ce qu'on pouvait en tant que délégué def ay conférence de presse et tout te mi ngi ci vidéo bi may wax mais malgré ça dañ ko mujj dàq. Euh, non seulement mais lan moo tax ñu harcèlement mooy maanaam harcèlement mooy maanaam euh, ci misal, xale bu jigen bo xam nit dako koo bëgg mu ne ko bëgguma la mu ko top mu top ko chaque jour diko wo téléphone di ñeu di feug seen kër ni manam. nit. maanaam muy sur le dans le milieu professionnel wala su fu mu mënti don nit mhm. da ngeen wara yam ci seen liggéey ngeen yam ci liggéey bi kessé waroo koo teg loo xam ne maanaam dafa ëpp li nga xam ne mooy contrat de travail bi wala nga koy teg loo xam ne tegoo ko beneen employé parce que yow da nga am moom beneen problème wala nga jéppi ko. wala dara c'est-à-dire dañu amoon am ku ko bëggoon koo xamante ni ci ci biir. waaw entreprise bi la nekk. voilà doon ko ërtal daal. Mm-hmm. doon ko ërtal maanaam mi ngi mel ne nit jéppi la ci kër rek bëgg la ërtal pour que nga génn kër gi. soo laalee ndab mu ne la tegal so loo heurte la dal en fait. ci yooyu la jógee. ci yooyu la jógee mom mom mhm. moom si boppam moom ndaw ci mhm. mais fofu lu intéressant mo fa am. Mhm. parce que euh directeur bi bi bi bi da koy licencier euh, ci biir vidéo bi may wax ni bo leen ko sétane di ngeen ko guiss ay conseil juridique ci bopam dañ ko né c'est une mauvaise idée. directeur ressources humaines am ci bopam né ko ah boo mënee def néna dal mo gën. mu orgueilleux qu'il est mu voyager en en en France né bala maa ñëw bëgg naa ñu dàq ndaw ci <laughs> le directeur. le directeur, Xavier idée. Mhm. Il faut que les gens sachent quoi. Euh, bi Amé, le directeur des ressources humaines au lieu de responsabilité mu délégué pour qu'on en fasse un bruit pour Xavier Idié, il il doon il arrêté. Mhm. mu daw ay responsabilité jour où mu suis a euh, ndaw euh, lettre de licenciement bi. Mhm. mu absenté wax adjoint wam pour que adjoint wam jox ndaw euh, lettre de licenciement bi adjoint wam ne ko mais non seulement une femme enceinte euh, son licenciement est strictement interdit par la loi mm-hmm. ça c'est un deuxièmement motif que pour licencier c'est trop facile quoi si mm-hmm. euh, lettre bi ñu la euh, damay mais di gis vidéo bi responsable ci mm-hmm. bi mi ngi actuellement ñu dàq ko euh, ñu ñun def nañ liñ mënon yépp wax dëgg yàlla. Mhm. Euh, mais malheureusement fofu la muju quoi. Mhm. Euh, pour wax la rek manam né kaw harcèlement dafa yag Eiffage léegi nag boo demee ba neexatoo leen dañ lay pour te pousser à la sortie soit nga dem ba gis ne fii xat nga fi nga démissionné dem wala inspection du travail ñu jëm la fay 6 mois comme comme ni fait ndaw 6 mois pour que nga nga démissionné dañ lay proposé pour 6 mois ñu fay le salaire 6 mois pour nga démissionné jaay doole naka ngay def ak sa ak sa ce que sa njaboot maanaam wax man aussi dama dama ne ba sentir né ni ci kaw harcèlement lañ dem ak bëgg ma pousser à la sortie ma taxaw nak commencé bañ. mais yow exactement ce cas naka la démé lan mo tax ñu dal di lay yob inspection du travail lan mo tax ñu dal di lay licencier exactement problème bi fan la sookee ko. waaw xam nga euh, euh man je dois souligner que né mm. def naa Eiffage sept ans. Mm-hmm. si sama 7e année la nek ni février euh, avril avril 2000 euh, qui avril 2023 biñu nek nekk si la arrêté woon sama contrat. Euh, boobu ba léegi je suis sans activité mais euh, six ans yi ma def FAGEP yëpp musuma am avertissement mosuma demande d'explication musuma mhm. fa xuloo ak client ba jar mu dem mu dem si kaw dima dima dima dima dima manam dima ma té lool rek c'est très difficile en plus aussi mu am le cas des écarts moy mhm. que né manam nit ki suy liggéey nga dem ba egg de fin de poste manam ñu ne tay am nga écart mhm. ndax euh, euh, ni ñu koy waxé sax li nga waroon verser verser woo euh même lool musuma ko am ci 6 ans ma dem en moins de 6 mois ñu bëgg ma teg ay dossier en moins de 6 mois nous bëgg ma 3 demandes d'explication yu mais lan nga def moins de 6 mois ne ci pas lay détail par détail. Mhm. mais vous lay une genèse pour que nit ñi gën comprendre. entre parenthèses c'est que mhm. ba ah xam nga reverser. c'est-à-dire. <laughs> da ngay liggéey ba ngoon. Mhm. moto exemple c'est C1 véhicule particulier mooy C2. Uh-huh. minicar mooy C3. Uh-huh. camion mooy C4 bokkuñu tarif. léegi euh, service contrôleur yi. Uh-huh. ñoom si seen i écran dinañ gis ñaata moto ñoo jàll. gis ñaata camion gis ñaata yépp ñoo jall mais yow loolu doo ko mën a gis yow mi nga xam ne yaa ngi nekk en front office mooy maanaam yow mi jàkkaarloo nekk si biir cabine yi doo ko gis yow. Euh, léegi boo liggéeyee ba ngoon li nga yor si xaalis doon noonu nu mu mënti toll loolu lañ lay wax ne la verse correct nu mu mën a toll baax na. ce qui fait que

10 000, yi nga gis fële kële di ñëw mooy nekk sa xel ba mais professionnalisme quand même. bon tamit day mhm. tamit euh, nit du machine quoi machine sax si boppam day panne nit day sont euh, répétition lay mhm. day dem ba comme un robot. exactement voilà. Mhm. da ngay comme un robot Le professionnalisme certes mais mais aussi quoi. mais expliquer exemple mu am aussi excès excès aussi mën na am manam tey jii benn client jox la 2000 euh, nga dem ba koy wecc tamit euh, xelam ki mu dem mhm. ba bàyyi fa wecc tam loolu yépp ci caisse nga koy def mhm. bo démé ba ngor nak manam dafa waroon am ñu xol yow balance bi ñaata nga liggéey ñaata nga liggéey lan mo ci ëpp lan mo ci manqué pour que sax bu client ñëwé def euh, ki réclamation ñu mën ko jox xaalisam mhm. mais yow mom yow bo boo defee écart après xola 15 jours wala 1 mois après la lay soog wax né le jour temps defoon nga écart

ñu ërtal la nak manam ne la pour que excès yi nga def fi yëpp ak ak yi euh, nu ñu koy waxé sax euh, euh, comment dire mhm. euh manquant yi nga am ni yëpp moy tax dañ lay créer le dossier. d'accord dañ lay créer le dossier mais yow su dossier exactement. lan moko lan moko ko ci lan la jógee. wa légui nak euh ñu nekkee délégué nonu délégué de manière générale souvent mhm. euh dañ dul manam neex employeur yi parce que dañuy gis ñii dañ ñëw pour casse. Mhm. légui nak fofu nak dina fa jéggalu bu baax parce que. dafa am ñu ma ñaanoon ne bul wax ci coopérative bi. Mhm. mais euh, nit euh, say mbokk sax lu ñu la bëgg-bëgg. Mhm. bu ñëwee ba agsi ci kuusu bàmmeel. Mhm. fa la ñuy yem. man Eiffage mi raw ma fa kenn parce que euh, xam naa di nga ma laaj ne ma ana say collègue lu tax jàppaluwuñ la wala truc mais collègue yi mënuñu def dara lu délégué yi deful te délégué yi wax dëgg yàlla am na problème yoo xam ne du ma ci dugg mais fi mu toll nii maa ngi sant bu baax Mohamed Lamine Ndiaye. avec euh, euh, Jean-Baptiste Bassène mhm. ak Latine Ndiaye depuis nga depuis dossier commencé à batailler. nous dem ak mhm. aussi comprendre mais il faut que nous aussi mhm. parce que comme dem na euh, du travail nous valider licenciement ministère du travail nous valider nous licenciement nous mu des sama nous jëm moi je trouve que c'est le moment de dénoncer pour que sénégalais yi xam abus am foofu pour que ëllëg bu ñu ko naree def keneen comme ni ma wax sànq ci gaynde gi mu mu mu arrêté ak lu mu am am force dina xam ne am na cas yoo xam ne su naree demee ni sénégalais yi dinañ ko yëg. Mhm. état il faut alerter daal. Mhm. léegi euh, coopérative d'habitat bu Eiffage. Mhm. dommage histoire nak mais il faut ngeen même ma wax ci parce que loolu moo indi problème parce que buñ commencé soulever. non il faut ñu indi problème bi sax. voilà kuy exposé mëna xam. effectivement naka la demee ba yegg si voilà légui buñ commencé wax problème coopérative d'habitat bi. si sama chef yi nga xamne ñom ñomay eurtal ñom seen bop dañu bok ci ñi géré coopérative d'habitat bi légui ñu xamne nak ne délégué dañu nara léral mbir mi te bu féké ñom ñoom ils n'ont rien à se reprocher mais lutax ñu ñuy bañ ñu ñu léral ko lan lañuy léral lan mo ci lëndëm ci coopérative voilà li ci lëndëm moy dañ leen laaj ay facture par rapport ak euh, par rapport ak euh, ñoom gestion bi ñu ci def nga xam def nañ plus de trois ans. Mhm. pour pour pour pour ne pas me pour pour pour ma bañ a wax lu lu exact tout dal moi mhm. may wax euh, trois ans au moins mais ëpp na sax cinq ans yo xamné amul amul ben suivi amul ben manam contrôle dal mhm. ñom ñoo yor coopérative yi def si lu leen neex. nit ñi ñëw di leen la ay factures ci yenn yi ba mënu ñu leen fournir ay facture te chaque mois da ngeen daan verser.

waaw léegi nag euh, directeur bi di bañ mu siiw aussi. Mm-hmm. di bañ ñu ko génne si presse mais man comme que loolu moo nar a cause sama licenciement il faut ngeen comprendre ma dama siy wax. Mm-hmm. dama siy wax te kenn mënu ma si tere wax. mais foofu nag laa si yam pour tamit ma bañ a wax loo xam ne wóoruma ci mais euh, dafa ñoom fi ñu jënd. Mm-hmm. am na ci foo xam ne am na ci benn parti boo xam ne dafa am litige. looloo tax ñi nga xam ne seen terrain dafa parti boobu mënaguñ jot seen terrain bien que am na si ñoo xam ne am na lu ñu war a jox coopérative yi. mais loolu. ben chose la deuxième chose moi coopérative dafa am caisse bo xamné parfois dañ doon def ay euh, dîner de gala. Mhm. yo xamné parfois ñu jënd ben tableau art mooy tableau art parfois ñi jaay aux enchères. ben borom barké jënd ko pour jappalé euh, coopérative uh-huh. waaw nga xamné ne tey coopérative bu démon ba bëgg manam saxal ay garab wala ñu défar ay ay ay yoon pour euh, terrain bi uh-huh. dinañ am xaalis bu ñu ko défé parce que nit ñi en fait yow li ngay fay ci coopérative bi loolu sa terrain kese la uh-huh. mais après il faut viabilisation il faut beaucoup de choses après ci terrain bi quoi looloo tax nak euh, manam ñuy doon def ay recherche de fonds loolu nak si lañ leen laaj ay compte ñu commencé indi problème délégué yi loolu moy fofu la harcèlement bi légui euh dafa am la réalité de réalité la ne euh, dafa négligence bu doy war ci euh, équipement yi. Mm-hmm. lolu da fay répercuter su ñun. bu féké da ngay jappé péage di nga gis client day ñëw ba voie yor carte rapido mais day def ni def ni génn fi té ba sax lolu tax sax ñu jël ay euh, ñu des ay ava moy mm-hmm. ñi nga ay ils sont en vert bo ñëwé bu sa carte jël. Mm-hmm. manuellement nga mais lolu liy tax moy parfois day am ay voix yo xamné antenne bi du dox. légui man mën naa d'accord nga ne ma euh, panne comme ni mo wax sank machine yëpp ay panne. même nan la ben antenne mën pané bo xamné day tok plus de 6 mois wala 1 an yo xamné du bax lolu ni muy répercuté su ñun mooy client bi nga xamné dafa ñëw ba ci voix bi. parfois da ngay nekk ci voix manuel moy voix yi ngay fay xaliss antenne bi baxul client bi day ñëw ba mbëkk barrière bi arrière aat waaye lan la wax la lu ko neex. Mm-hmm. déverser la toute sa bile. Mm-hmm yow loolu rek déjà pression la encore boo xam ne day day ñëw si sa employé. Mhm. boo xam ne boo defoon li nga war a def di agir à temps ci antenne boo war a defar euh, kon loolu du ci am ça c'est un te li ma comprendre mooy comme ni ma wax sànq ne maanaam da nga leen jox benn proposition ñu ne la logiciel bi ñu koy gérer ñu ngi ba France. mais c'est-à-dire que man France man man man man lan mooy problème entre nous Sénégal ak France ba ñun ñun mais ñu ñu def sax au moins maanaam former fii ay jeunes yo xam ne ëllëg bien que ñoom euh, ñoom ñoo yor concession bi mais mu am euh, transfert de compétences, nga xamné tay tey war nañ mëna a ñëw sax ñom ñoo yor logiciel basé au Sénégal pour beaucoup plus euh, de rapidité ci intervention yi wala dara. donc si je comprends pour problème amé ci sen équipement. il mhm. faut ñu ñu ñu depuis France pour ñu mën ko régler. du yépp mais ci logiciel bi. Mhm. logiciel bi ci bopam mhm. ñi ko gérer France lañ nek d'accord ñom de loolu nous wax parce que parfois dama leen proposer ne leen. comme que euh, loolu m'a ngi ñëw ba ci intervention ba tax ci li nga xamné mo waral sama ñu dàq ma. dañ leen. Hum, euh, man sax dama ci bind benn projet bo xam dama ko jox le chef de gare. Hum. sama mon supérieur mom mu jox ko le responsable péage. Hum. ëpp na 3 ans fi ma lay waxe ndax 2019 si je me rappelle bien. mané len leen laajte pièce bi ak laajte monnaie bi da fay indi beaucoup de problèmes entre ñun ak client yi. parce que client yi dañuy yaakaar ñun dañu am euh, weccit. bañ leen wecci. comprendre nga té lolu problème la légui s'il vous plaît li ngeen di def moy da ngeen di euh ngeen def toglu. 500.

Euh, ñu war ko 400 nous avons amul ñu ticket avoir voir Nous avons bu des ba ci avons gare. mën ko Nous avons dem. non non pas ñu mais mu avons en fait. d'accord mu avons ko. Mhm. ticket bi Nous euh, avons euh, affaire électronique ñi koy xam mhm. xam c'est une possibilité mais yoon say agent di la entreprise non seulement parfois ñu ko par jalousie pour bañ ñu naan ay ki mo indi idée bi wala sénégalais dañoo négatif quoi en fait wala euh, parce que dama dama damay faral di wax ne nit su fekkee respecté nga sa soxna deug mhm. mu né la utal ma su ne respecté nga ko bo démé uti mbindaan tey nga nga né nga ñëw wax ak kenn né ko ah man de dama bëggoon eh, li ko liggéeyal sama mu la cent mille bëgg di ko exemple mhm. nga ñëw sa soxna ko ah tay rek ki ma gis 100000 la wax na ko fay té 100000 xam nga ak sama salaire n'im mënu moko fay 100000. Mhm. Benen jour nga dem gis ko xam dafa bëgg di nga ñëw ne ko ah kii ma gisee day fanaan te gis nga kër gi nga koy rendre compte daal en fait moo xam ne kii kat mi ngi ci kii mais duñ la la mhm. yaay continuer di souffrir ci loolu mhm. léegi nag euh, man ma ne leen te loolu jóobooguñu woon sax gaar bi nga xam ne mooy lu mooy bi nga xam ne moom la ñu fay 600 bi dend ak aéroport loolu dama ko defoon parce que xam naa sama collègue comme en tant que délégué dañuy sonn mhm. boobu sax nekk gu moo délégué sax euh, dañuy sonn war nañ ah ci weccit ci weccit kon war nañ leen mën a dimbali wala ñu xool benn solution buy tax ñu mën a nekk mu loolu mën a Euh, ba ma demee ba wafa dem nak ma ne man duma laaj pièce ken duma laaj pièce ben client. Mhm. parce que da ngeen contradictoire ci sen procédure mënoo leen euh, client bi ñew ñu ñu ñu parce que bu fekkee da nga faral di di client bu ñëw nga wécc ko mu dem après sa wécc day gaaw a jeex. Mhm. sa wécc bu gaawee jeex so woté ci kaw ne leen indi leen ma wécc dañ nan la euh dañ nan la da ngay yàq da ngay yàq moné bi. Mhm. <laughs> dañ nan la da ngay yàq moné bi. te boo amee problème ak client ñu ne la waaye wecc di mi ngi foofu wecc di pour client la wecc leen client yi mhm. léegi nga ne man leen nag comme loolu la te ñeen ku am problème client fii fi ngeen ñëw naan ko ay da yàq image entreprise wala dara man du ma laaj kenn pièce mhm. du ma laaj kenn benn monnaie ku ñëw dama lay wecci nga dem sa yoon nga am jàmm ma reetaan la reetaan bu neex sourire la wala sama bëj yëpp nga dem ma dem ci jàmm te comme ni ma la ko waxee 6 ans liggéey naa fa mosuma alors bu jugee ci problème mu euh, weccet bi. Mhm. Euh, problème mu qui euh, def ci am chaise. problème chaise def si am. mais problème we problème weccet bi foofu. déjà bi ñu demee inspection inspecteur bi def na parce que ben jour dama bi ma leen waxee loolu dañoo commencé su ma leen laajee weccet ñu yéex a pour pour ba jéem a koñe daal commencé harcèlement parce que tudd na dossier coopérative bi te taxaw naa ne leen aussi du ma laaj pièce. Mhm. ñoom ñu jàppee loolu acte de défiance d'al te man ci samay droit la nekk parce que inspecteur bi daf ne leen sur ce point.

ñooy ñëw di ko bo di boole si seen i morom employé. di rendre compte di rendre compte. ma ma loolu mais loolu loolu c'est pas honorable quoi nit danga war a gëm sa bopp diñ mm-hmm. te xam ne lépp looy am. liggéey sax nenañ manam maanaam sabablu la rek mais nit ki su togon def li wara def niko suñu mën a waxee mhm. wóor na yàlla lu ko war fekk si dina ko fekk ci exactement mais abandon de poste bi jugee ci wéket bi naka la demee exactement wa non c'est que abandon de poste bi ñom ñoko qualifier de abandon de poste mhm. ñom ñom ñom wa Eiffage mhm. mais inspecteur bi li leen ci wax loolu leer na parce que abandon de poste moy nga nekk ci sa poste bam mu yàgg dem def leneen lo xamné bokku tok ak mais man dama bima leen woyé pour ñu indi poste euh, euh, pièces yi ñu bañ dama tëj cabine bi ne leen nak ñeen do leen ma fonto nak

Euh, ñu def un euh, jour euh, si même jour comme 15 h 35 nous, nga fait mhm. 10 minutes après nous avons fait nous 10 minutes mhm. pour le la. c'est de parce que après dañ fait ne sa cabine di di pièce mhm. man d'accord un jour bi pièce yi dafa pièce

ministère du travail financé euh, formation boo xam ne ñu ko résidence Mamoun mhm. entre direction bi Eiffage ak ñun délégué yi pour que ñu waxtaan te bàyyi bras de fer bi quoi mhm. comme jóge nañ ci loolu ñu mise à pied huit jours sama copain délégué yi dama noo comme si ay kii lañ jógee non noonu quoi mhm. dina essayer gérer bi ma fa c'est si laa dem si directeur des ressources humaines pour protection contre représailles parce que kaw harcèlement yi FH, mu FH Eiffage euh, euh, direction bi dafa génne benn note tuddee ko

directeur des ressources humaines bi jëlul ay responsabilités parce que bu jëloon ay responsabilités euh, sama chef bi mooy responsable péage kon il ko donné defaat wala moom sax mu waxoon ko sax directeur général bi ko il y a un cas de harcèlement kon il def fait ce qu'il a def. léegi sa diggante ak ak DRH bi naka la mujjee. diggante ak DRH bi déjà moom bi ñu ministère du travail dafa nié que ne mosuma ñëw ci bureau te dem nga fa te dem naa fa. yooyu léegi avec des gens comme ça ñoo xam ne c'est-à-dire que Sénégal si boppam la kenn xamul lan la quoi en fait. Hum. parce que il y a des gens irresponsables. Les dénoncé ko. dénoncé avant qu'on arrive là euh, dafa am jour euh, sénégalais dafa a quoi pour pour di la dara dafa c'est un ami au responsable péage. Mhm. mu xam commencé à faire ak pour mhm. bëgg ma ërtal bokk ci harcèlement bi benn jour ma ñëw di def faire mu euh, masque. ma ne ko démb ak bërki démb yëpp liggéey ma mhm. parce que damaa indi certificat médical parce que sama sinusite bi daf ma daanee mhm. euh, wax dëgg yàlla tey mënu ma takk masque waaw tey ma ne ko tey quoi mhm. waxuma ko du ma takk masque pour toujours mais tey mënu ma takk masque parce que sama sinusite bi daf ma daaneel pour ñu xamul sinusite moom la ñuy wax yaaf ci olof nga xam ne bul la buy nekk fii loolu am na masque yoo xam ne boo ko takkee doo mën a nooyeeti wala boog tu vas le faire difficilement. Mm-hmm. te en plus efface une contradictoire mënoo sax tak masque client war a ñëw ak bruit auto yi nangam nangam nga wara communiquer ak mom bëgg tak c'est que c'est day am lo xam dañ koy def juste pour se protéger certes. Mm-hmm. Euh, par rapport ak euh, saxar si amone ça hein voilà Covid Covid bi. Mm-hmm. te moment Covid bi ñëpp doon ki mais même sax nekkatuñu moment Covid mais warna am tuuti allègement sax. légui après ñu mujjé def nan. légui euh, ci lolu mu ne ma kon da nga ñu def arrêt de poste moy nga wacc dal kon. Je ne ko waa mais li lay war harcèlement lan moo tax instant bii nii nii léegi le soo arrêté woon le si péage bi di gis agent yu bëri a xam takkuñu masque mhm. mais nag la la la la di bañ discrimination mhm. ci a nit fi le ko faa parce que gëm-gëmam wala parce que parti politique ou parce que waaso bi mu bokk mhm. ah, parce que ay pensées yu am c'est formellement interdit légui parce que ñom limay dénoncé dénoncer ci entreprise

sama CRA mooy sama compte rendu activité. mooy euh, document yi nga xam dafa nek ci biir cabine pour que lepp lu mangé ci biir cabine bi nga ko ci bind. Mhm. euh léegi jour bobu euh, euh, mhm. ma def arrêt de poste. Mhm. euh jour bobu ma def arrêt de poste. euh di wàcc. wàcc mu nek deuxième incident. léegi chaise bi buñ ci mënee dik waaw chaise bi poubelle bi. chaise bi rapidement parce que déjà am nañ 30 minutes. voilà chaise bi ak poubelle bi ni démé moy que né dañu euh manam anomalie yi ma lay wax dafa dem ba bari bi mu ñun délégué ñu daal def benn liggéey bu am solo. Mm-hmm. commencé euh, Pikine ba Toglu ñu def deux équipes ñu dugg dans chaque cabine. Mm-hmm. xool anomalie yu fa am. bi ñu ñëwee exposé ko responsable péage ak direction générale ñu ne ñu ñun de li ñu si gis yëpp wax dëgg yàlla waxu chaise yi moo ñu si gën a jaaxal. Mm-hmm. ndax chaise chaise yi daf dafay bari sax suñ fournisseur bi nee chaise yi mi ngi fi saa yoo leen soxlaa mën nañ leen jox. ñun leen ah ñu pourtant dans la réalité nit ñi dañ koy casse ba sonn dañ koy bind ba sonn tamit té du safara ngir yalla kon muñ ko bindaté communiqué wax personnel bi pour que ñuy bind parce que nit ñi dañoo dem bind bind bind bind ba légui bo bindé sax li nga bind ko ko safara mhm. nit ñi dem ba son nak bind bi mhm. légui ma défar ci euh ñu euh, euh, sensibilisation mhm. pour que nit ñi continuer di gëna bind anomalie am ci voie légui comme responsabilité képp dans les 112 heures maximum d'accord le euh, rapport bi ma lay wax nii ñu ko direction bi. Mhm. ñu ko mois de juillet 2022. Nous vingt deux. ñu ba février 2023. le 2 ak le 3 février. Mhm. ma daal di def euh, gis nga ko chaise 23. Mhm. chaise cabine 23 quoi. HS dos mooy doowu chaise bi. fi ngay wéeru fi ngay wéeru chez baaxul. te chaise yi dafa élément c'est essentiel. parce que ci ngay yendu. te ci ngay yendu. mënoon chaise bu comme ñoom nee c'est 72 heures.

changé leen siège bi comme ni ngeen wax changé na lu ñu ne ma euh, fekk ne laa fay suñu chef bi woote na woote na ne su ma fa waxatee siège bu yàqu euh, bu ko kenn changé naa liggéey mm. noonu wala wala ma bàyyi ma ne leen nag kon nag ma ma ma arrêté sama poste comme ngeen ma defoon keroog mais du ma si liggéey ci siège bu baaxul di wàcc sa yaram di metti nga xam ne boo demee ba egg sa kër ñibbi di noppalu sa jour repos deux jours yi da nga noppalu deux jours yi ba deux jours yi ñu bëgg ma jox beneen demande d'explication changer siège bi gënul woon yomb ñu jox ma demande beneen demande d'explication ma xam ne ñi ci acharnement lañ jëm ak ci dem bëgg ma utal dossier boo xam ne dossier juge boo ko mën mën a wan du doo si am dëgg parce que dañ li nga def dafa bari mhm. ma tontu ko nag ci demande d'explication bi wax ko li mu nekkee ci entreprise bi yëpp dugal ko ci biir groupe euh, les délégués bu bu entreprise bi pour que entreprise bi xam li mu nekkee mu arrêté acharnement bi ak harcèlement bi ci man mhm. loolu ñoom lettre bi bi ñu demee ñoom si euh, demande d'explication boobu si lañ sukkandiku

yow kër rek yow kër rek poubelle bu toj xanaa waruñu ko fa bàyyi waxuma la entreprise qui ça fait des millions sur le dos des sénégalais mhm. te poubelle bii ma lay wax nii leer na ni je suis sûr et certain xanaa ñu gis vidéo dem changé ko mais mi ni je sais pas anam fu mu fu mu fu mu fu ma ko teg sax mhm. euh, mais bu ñu bu ñu bu ci loolu. Euh, prime de risque yi nga doon euh, souligner. waaw lan la exactement. waaw voilà prime de risque. Mhm. ak maanaam capital capital bi d' ak comme yi ma la wax ñoom dañuy jappé né comme ni ay casse té lolu normal la maanaam entreprise bu mel ne ngay noy saxar si ay camion di romb di raser ay cabine à deux reprises euh 5h45 nga xamné 15 minutes parce que 6h dañu jël poste 15 minutes mo déssé won ñu ñu jël poste ña ñaari jours yu bokul cabine bi euh, maanaam ben camion ben yi yi yi souf suuf si dafa ñëw raser ko carrément nga xamné bu fa fekkone ni day faatu té lolu fekk na euh, ñu ñu laaj leen prime de risque né la pour ñu jox ñu prime de risque té jox ñu ñuko manam pour wax la manam dañoo soxor bi ñi généré fofu nonu la lañ Sénégal dañ koy du France té ñun dañ ci wara jot suñu en tant que sénégalais parce que si ko lal ni suñu soufu mam la waaw ñun dañ yor ay il faut que ñoom ñu xamné ñun ñeen ni ngeen ay njabot ñun non lañ ay njabot lima dégg na ngeen naan plainte pour ay affaire diffamation wala je n'ai plus rien à perdre parce que wóor na yalla dem teud kaso billahi wallahi tallahi moma gënal may yow du xol sama njabot te duma am luma jox ko sax def man de de toute façon man la banque macule pour euh, prêt bancaire mo fa amone bo xamné ne contrat motax mo meun ko am. Hmm? te banque bi si bopam su ko fayul daf may porter plainte ngeen tamit ngeen da ngeen may porter plainte kon kay man lu may dawati <laughs> je n'ai plus rien à perdre soit c'est la banque soit c'est vous kon nak man ñeen lay top di xalaat nak na justice dina def liggéeyam delloo sama samay àq ñu dédommagé ma ba paré réintégrer ma sama poste bi ma nekkoon ma continuer liggéey téral sama njabot téral sama famille. Euh, est-ce que am nga euh, am nga ndimbalu employé yi nga xamante ni ñoo nekk ci Eiffage. waaw ndimbalu employé yi damay wax ni employé yi maanaam euh, délégué yi ñoo leen fa teewal te ñaari at ci ginnaw dañoo changer sa secrétaire général parce que kenn ki dafa dañoo bëggoon dem grève mo mën du dem grève ñu gis ne il ne fait plus l'affaire de du collège. Euh, et des employés de manière générale nous changeons, ko benen euh, euh, secrétaire général collège c'est une réalité mais personnel nous action sans collège bi collège nous, aussi comprendre posture nous mënuñu ak man may dénoncer entreprise bi nga continuer comprendre mais aussi il faut que nous comprendre man aussi su ma fi toogee di ngàmmaaral ba ñu dem ba cour suprême ak yàlla rek xam lu fay lu fay am ma perte doo leen mën dara tamit lu dul ne ma muñal bu boobaa kenn du ma yor sama kër ban ban ban ban recours nga amaat c'est la dernière instance c'est maa ngi siy liggéey ak sama avocat pour que maanaam ñu delloo ma samay àq delloo ma sama liggéey waxuma ay ñu dédommagé ma nii nii nii ay comme ni ñu ba wax ay un mois salaire xaw ma six mois salaire un an salaire moom dañ may jox lu am solo ñu dem ma dem bu leen neexee sax du bu ma jaar ci péage wala ñu delloo ma sama liggéey te mois yi nga xam dama damaa toog liggéey ma ko ñu fay ma ko ba mat sëkk parce que tamit jaay doole bi ci réew mi il faut que mu dañ quoi. jërëjëf xam naa ni euh, waxtu ñu cërale woon mat na sëkk dañ koy jaajëfal bu baax a baax a baax moom Ousseynou Thiam délégué du personnel euh, Eiffage autoroute à péage ba tey di chargé de communication des délégués. Euh, yi nga xamante ni ñoom ñoo fa nekk. jërëjëf la sant di ñaan yàlla magal gi ñu jëm euh, ñu jàmm. ñu dem si jàmm ñëw si jàmm suñu borom euh, yombalal képp koo xam ne yaa ngi dund jug pour sa njaboot. suñu mhm. borom mhm. ko. Mhm. te defal ñëpp bu baax a baax moom Ousseynou Thiam la dalaloon ci suñu plateau entretien exclusif doon waxtaanee jafe-jafe yi nga xam population de l'autre côté tamit dañu def ay dor nañu ko sax bu gir meuna jot euh, responsable tamit ñu indi ci euh, réponse euh, ci li nga xamanteni mom mo fi nek bu jog leen ci numéro entretien exclusif d'ici là portez-vous bien et gardez la sourire. gannaaw bañu séké sekkee waxtaan ak Ousseynou Cham nekkoon agent ci Eiffage autoroute à péage rédaction bu Senenews TV dal dinay def ay djégo ngir mëna a ak ay autorités yi nga xamante ñom ñoo ngank Eiffage autoroute à péage ngir mëna a équilibrer bile information am ci ñaari version waye ñom lañu xamlé mom modi paré guñu pareeguñu benn yoon ngir tontonté ak Ousseynou Cham ci bile dossier ndax dafa nekk ci loxol yoon. Senenews.com c'est le lieu de rendez-vous par excellence pour vivre l'actualité autrement votre site d'information cnenews.com met à votre disposition une application mobile totalement gratuite et disponible sur Play Store et App Store. Un portail riche et varié avec une couverture de l'information 24 heures sur 24. L'application CNews est également très